fonk ñëpp laa yëg ci kaw tamit képp ku ma yëg tamit mu lay yëg waaw parce que man fii man maa fi jeune boo xamante ne peut-être xëy na yàlla mën lañ jëkk a génnee am na ñu ma fi jiitu woon nekkoon ay mbër mhm. te ñu si bari dama leen tarbiyu dama jaar seen loxo dañ ma jàngal ñi dañ ma doon yóndi ñi dañ ma doon def mhm. kon tey bu ma nee am ak samay morom ma fi nekkal yoo xam ne samay morom lañ ñoo ma daax a bëri foofu mais xëy na yàlla man sa man la feeñal sama tur mhm. waaw kon tey mënuma lu wàcce waat sama bopp seen kanam rek waaw nekk nekk taalibe seen wet rek loolu moo waral sama cofeel si ñoom ba tax na ku ma xamante ne yàlla boole na maa ngi yow moom mun a dugg say mbir rek waaw damay ñëw ñëpp laa yemale dafa mel ni Siteu rek waaw liis tamit sama rax la waaw gis ngeen open press am bi liis yaakaar naa ñeenti yoon la ma mos a gis si dundam te ñoo dëkk jàmm gën ñeenti yoon ñeenti yoon la la mos a gis ñeenti yoon suma suma juumul waaw mais peut loolu si man la man maa dul xamuma mm-hmm. waaw mais ñoom ñëpp samay rax lañ sama xol lañ nekk ma koy ñaanal yàlla suñu borom kàttanal ko ba mu dem ba raw ma waaw ma loolu laay ñaan waaw parce que. ko bi la wax nga ko sànq nee nga soxla nga bëre ak Lac de Guiers. waaw ñu bëggoon a xam est-ce que ay promoteurs ñu ngi ciy dox euh, su fekkee ñu ngi ciy dox fan lañ fan lañu toll ci négociation mu ngi avancé wala. non max nee nañ ma am na ay promoteurs yu si dox mais avancé wu ma xaw ma si 100 pour cent. parce que lu taxawagul moom du wax mais ne moom may xamal am na ñu si dox moo tax xanaa gisoo maa ngi tooñ sa waaye léegi ne xanaa makan moom du tëggal combat wala man bokk ma si mbëri muy tëggal combat. incha allah waaw. mais si te da nga gis ñu bi nga daanee Paso coow li bari loolu ñu gis si te dem bi wala lan. man maa laaj Lac de Guiers wala de Guiers moo a soxla. la njëkk a soxla. waaw kon ma laaj ma tontu la rek dama bëgg mu gàtt moo tax ma ne ko pare naa parce que am na keneen ku ma war a laaj. mais Lac man làmb laa fi nekkal làmb moom laa fi nekkal ku ma làmb booleel samay kilifa gis ne ne baax na sa waay ma dama koy jëlee waaw. mais sa relation Zarko foofu lañ koy sant si si taamu andiwaat ci waaw Zarko maa ngi koy nuyu Baye Fall bi maa ngi koy bëggee moom Baye Fall la. waaw Zarko dañoo toog benn moment eh, lamb ji mu sentir Zarko quoi gisatuma ko. yee mm. eh, ma lijjanti numéro woo ko jour sax dañu xuloo parce que dañu xuloo ba mu coupé téléphone am ma ne loolu yow la. après si lendemain ma woowaat ko c'est la même chose mu ne ma yow doon nit sax ma ne ko non yow dañoo war a wax ñu waxtaan mën na ko yow da nga war a ñibbisi yow danga bàyyi xaalis bu bari fii. ñu wax ma ne ko yow mun dem naa Grand Yoff seeti naa boo yëpp te koo ñoom yëpp laa dugg boo yëpp samay samay waay la ñii samay grand ma gis ne moom moom mun na protéger Grand Yoff ma na ko ñëwal moom tamit mu ñëw te bu mu ñëwee gis na ko mu ngi avancé mu ngi bëri yàlla di ko defal teranga loolu la rek loolu kese lañ seeg seekuñul bëri Ada Fass te Ada Fass teg ci mhm. ñu gis ne ñu bari ñu leen Siteu dugal na ci loxo non ci xaalis yu bëree bëri sa waaye man dama am xaalis sa sax laa am eh, sama jëmm ji rek laa am waaw ah, man yow man yooyu man du ma si dugal sama loxo eh, man sama bopp laa tal quoi. ok ah. maa baax a baax di la siyaar yaakaar naa fi may njëkkee mooy combat bi fi amoon la premier janvier si diggante Balla ak Boy Niang nga defoon benn interview bàyyi waa Pikine bu ngeen xoolee ba Balla Gaye daan Boy Niang loolu seen gàcce la seen affaire la damay gis sax yenn ci sama mbokk journaliste yi ni ñuy suusu seme Boy Niang ci combat bi combat ba passé géejawaay am ci yenn tête bu la jëm baaraamam tuuma mais nga jël sa loxo dugal ko ci combat bi pour jàppale Boy Niang askan bi yëpp question boobu lan doon xaar lan nga ciy tontu sénégalais ak jàmm waaw mais ma leen di laaj est-ce que man awma droit far wala am naa droit far yow laa koy laaj am naa droit far waaw dama far rek nekk nit rek ñaari ginaar yi xeex ma xool ginaar bi ma neex ma faral ko loolu la rek Balla Gaye sama combat man ak Papa man la faral Maama Lamine barki démb rek moom mais loolu loolu mënul yàqu si àdduna du tee sama grand la ni ku baax la analise laa joxe far comme que ñëpp ñu koy defee. Mm. Lac bi nga demee joxewul analyse far. Mm. keneen ba mu demee joxewul analyse far c'est point loolu la rek mais Balla mbër la suñu grand la loolu la rek gis ne Boy ñaar jeune la boo xamante ne Pikine ñëpp dafa wéetoon mu gis loolu mais ma waxoo rek mu indiwaat beneen ampleur lamb ji avancé ngeen gis seen bopp yeen promoteurs yi. loolu la rek mais bu dee dama si dama ku si nekk da nga si gis sa bopp loo xamante ne daf la métti nga baal ma mais man jaam laa rek boo xamante ne waaw lool la rek. ok en tant que bu nekk si biir làmb nga jekk saa yi comme si di dafa bëri léegi di lay jam baaraamu buuma ci yenn combat ba ne la ñenn ñi sax say potentiel adversaire lañ. loolu moo toogee di ko dégg say ñoom di ko dégg say supporter di ko dégg lan la lay def. non defuma dara parce que dañoo umpale rek dañoo umpale rek waaw defuma dara mais si loolu la si yéem rek boo ma ko laajee peut-être naa la si tontu waaw. fi may jeexalee yow jox gars yi comme gars dañ fee bëri te question yi day war a yaatu Gris Bordeaux def na benn point de presse na combat am ak Ama Baldé Ama parce que 21 na pare na sax pour bëri ak Siteu waaw man tamit pare naa giri giri man pare naa de man du daw dara de pare naa comme ni nga pare boo paree suba sam pare naa waaw na ko jar rek na xaalis bi ñëw rek waaw kan giri ah, waaw man lan la giri di suñu mag commencé bàyyi su may xale bu ndaw nga naa ma nii giri man daw ma si yataa xanaa doo xool Zarko waaw. Zarko nga jox doo xool. waaye du xippi bëtam bi. ok gars yi na yaa ban daj ma ñëw amee naa fi ñëw di la siyaara naan Fall Baol TV wax nga léegi sa diggante ki nga xamante ni mooy Boy Niang mhm. benn ñaari sax bu ñuy xeex am nga droit faral kenn mais ñu bëri di wax diggante Siteu ak Boy Niang ah. ndax combat dina dox seen diggante ndax Siteu ak Boy Niang dinañ bëri loolu tam war na leer ci bopp askan wi ñu ngi koy laajte ñu bëri nga koy laajte Siteu ak Boy Niang boole na waaw Boy Niang ak Siteu nag man ni si Boy Niang di waxee rek laa ci waxee dégg nga papaam dafa ma yar dégg nga mais man dama may kilifa te samay kilifa mosuñu ma si woo te moom tamit chaque jour ni ma ci waxee rek la ci waxee mais loolu boo leen ko bëggee xamee da ngeen di da di da ngeen di gis ku yor saako xaalis dem ba ci kër gi wax ba génn su boobaa di ngeen xam loolu lu leen si leer wala lu leen si leerul. comprendre nga loolu laa ci am lu ma ci wax chaque jour da ci promoteur yor saako xaalis rek dugg ci kër mbër mi ba génnaat waaw salaamaaleykum mbokk journaliste bi toog yëpp am contentement toog ak euh, Siteu toog tey du ma dina laa poser question mais ngeen may may ma tuuti rek mu wax si moom du bëriwul Siteu mi jàmbaar dëgg ngi nii mm-hmm. bu muy dugg si làmb ñu bëri gëmuñu ko woon mm-hmm. mu nekkoon lu ndaw a ndaw a ndaw. Mhm. nit ñi ne kii xanaa day xaru xanaa day dof. Mhm. mu commencé si ñoom mbay vingt ans ñoom naxa naxa ñoom frasier. Mhm. mu xuus jàll kenn jàllale ko bu mu àgg fu mu toll nii. donc jàmbaar dëgg ngi nii. te bu continuer si yoon bi yaakaar naa li mu bëgg fu mu teg bëtam yàlla mun na ko ko may. donc lépp loo gis si àdduna rek gëm-gëm lu si am solo te booy bi dafa am gëm-gëm. lu ndaw la woon nag. billaahi lu ndaw a ndaw la woon. xam nga muy xuus seen biir tey ba ñëw àgg fu mu donc Gris Bordeaux am na ay promoteurs yu ko bëgg. Mhm. may laaj entre Lac 2 ak Gris Bordeaux tey boo sama choix bu njëkk nag mooy saison ren bi ma bëri si. nag mënul weesu comme si mun a doon si ñoom ñaar bëgg naa loolu mooy sama choix waaw mooy ma bëri si saison bi parce que ñoom seen carrière mu ngi dem te ñoom ñoo ngi entraîné te entraînement bu ñu def toog année ba bëriwul ak ñoo ngi perte. Gris foofu la doon waxee ak yéen xaw ma dégg ngeen ko. Mm-hmm. waaw kon tey nañ ko jàppale si loolu. man bu dee man moom pare naa waaw wax dëgg fa yàlla. Lac de bu ñëwee tamit pare naa waaw. maa ngi lay nuyu dañuy revenir tuuti rek le 15 janvier bi passé Zarko si fulla bëree si fayda waaye après combat bi ñu nii CNG daf leen ay daan sanctionné ñaari mbir ku nekk war toog naa terme ñu ngi bëri si ñaari xale yi nga xamante ay waajur dinañ yaakaar en tant que porteur de voix ki nga xamante ni saa yu defee bi dañ koy bàyyi xel dañ koy dañ waaw nañ xool yeneen tàggat yoo xamante ne ñu tàggatee xale yi wax ak ñoom avant mais man pour man d'accorduma pour ñu aj leen quoi parce que koo xamante ne loolu mooy gañ PM mm-hmm. eh, dañ ko si war a jàppale bu baax ñaan yàlla CNG bi nga xamante ne moom moo yor ndogalam gën ñu xam règlement bi ah ñu ko ñëpp di defee rek dañ leen jàppale ku xam ne seen i doom lañ seen i sët lañ seen i jarbaat lañ nañ leen jàppale te indiwaat lañ si làmb ju baax pour man. dama sob sax ma waaye war ko woon laaj. Mhm. am benn genre mu ci mun. Mhm. boobu nag man bu ma sañ su ma sañoon dañuy wax si làmb ba pare peut-être dinaa la si tontu. waaw bu ñu jeexalee si làmb dinaa la si wax quoi bu ñu duggee si côté actualité dinaa la si wax incha allah. Siteu euh, question bi ma lay laajaat mooy sa digganteeg roi des arènes Modou Lo. Mm-hmm. est-ce pare na pour bëre Modou Lo parce que Modou ñoo ngi wax diggante Modou Lo booy ñaamee ba léegi gisuñu combat bu taxaw mais est-ce que Siteu pare na pour Modou Lo. waaw Modou Lo sama grand la Modou ñu bari dañ may laaj ay question Modou Lo Modou Lo Modou sama grand la nekk boo xamante depuis ma ko xam ba léegi ni ku baax la dama ko yàgg gëm dama ko yàgg a suivre parce que dama am sama benn doom baay boo xam ñoo bokk pap ñu nekk xale lañ gis a bi ma ko gisaatee ma gis ko muy supporté Modou Lo man tamit si noonu laa ko mujjee di xam nga si yooyu lañ ëppoon di ñu gisante temps boobu parce que ay combat moro am temps mu génn ñu daje muy mu dem ba marié bi raxam loolu nekk sama fierté nekk gëm boo xamante ne lu ma sàmm ba tey ma ko mës a dindi dégg ma mais sama diggante ak Modou c'est la même chose comme li ma la wax si Boy Niang sama kilifa mosuñu ma si wax nii suñu ma si wax naa boo ko bëggee xam ne saako xaalis dugg suñu kër. dégg nga waaw noonu la demee nag voilà. ba tey Fall bi ma koy laajaat muy dafa bëri woon ak guy gi 29 avril 2018 yaakaar naa bi combat bi passé guy gi ak Reug Reug ba tey guy gi moom nee na bal bi mi ngi ci say camp du la tëkku parce que moo la daal. kan guy gi. waaw moom daan moom wax dëgg fa yàlla. benn fan moom instant yi xooluma guy gi quoi nee ko moom xooluma ko moom instant bi guy gi moom war naa xam ne man bu bëri moom dama sëfee sax làmb ak sama manque de expérience. koo xamee sa bopp dafa toj mu ñëw bëri ji yëpp ma bëri ak moom ba pare dem leen ngeen seetaanaat combat Siteu ak guy gi bu baax. Hmm. lépp man maa ko def. Hmm. ba pare am blessure boo xamante ne mënuma ko sa expliquer sama bopp lañ toj ci instant bi waaw kon foofu laa ci yem. ba yàlla def xamul ma la man maa ngi ci leneen maa ngi teg sama bët feneen ne ko moom xool na jël Zarko tarkindaa boobu. waaw loolu di combat mais Zarko daanu ko woon babat ah, ah, kon nag jar na Siteu sa beneen question mooy que la Lac de Guiers ñu gis mbër mu naqaree bëreel la mhm. boo xoolee euh, gëj na daanu ay at tey ñu bëri di ko maytu ba ci ku ci mel ni Gris Bordeaux bi nga ko waxee sax man ma ko wax dafa ne bëri maag Lac de Guiers numéro 2 ñu gis nga am ngeew nga nga am ordonnance ne Lac de su paree pare naa est-ce que xalaat nga bëri bi nga war a jël ci kaw neen day rasu du bëri lépp lu fay am adversaire dama koy def nga nan nga bëgg a bëri Lac de Guiers bu fekkee combat bi taxawoon na tey parce que bëri Lac de Guiers yombul waaw de Guiers mën naa waat si yàlla ne ku wax dëgg rek te yàlla rek tax hmm. ku mu gënul nekk champion gënoo ko nekk champion koo xam ne seen biir la nekk xaw ma benn jël la daa daanu hmm. ah benn jël mais nañu waxante dëgg Lac de Guiers kenn yabu ko ci làmb ji kenn yabu ko kon tey man bu ma nekkee ndaw teg sama bët si moom kon tey dama bëgg tamit ñu respecté ma rek bu ma bëreeg landageer de daan ko kan moo ma sañ bañ ci làmb ah waaw léegi ñuy tuutal Lac de Guiers naan du mbëru lii mm-hmm. Lac de Guiers mu gënul nekk champion fii Sénégal mm-hmm. gënoo ko nekk champion mm-hmm. waaw man gëm-gëm boobu la am vision boobu la am te damay ñaan yàlla nekk champion si kanam waaw loolu tax moo gëm ko ko beneen question bi ma ci am mooy euh, mënuma ci bañ a laal muy aspect social. Mhm. gis nañ ni sa man mën demeewul noonu. mais sa esprit li ci nekk lépp mooy fexe ba gox bi nga nekk bu lépp ñagul tam li ci ëpp ñag ba ñaari ñaari am yaa ngi koy partagé doomu jàmm génne ak ñeneen boo dee def aspect social boobu nan lay def ci yow ndax naam nit ëpp la na la mais engagement yi ñu ci am ak yërmande bi am na ñu bëri ñoo xam ne amuñu ko lan moo la motivé ba tax lépp di social. waaw li ma motivé nag ba nekk social mooy. man benn jeune laa boo xamante ne fii laa juddo ci banlieue bi fii laa juddoo si jàmm gën et mu métti woon loolu nag. Mm-hmm. et ñu nekk ay ndaw dëkk si benn commune boo xam ne ñun si commune Pikine lañ bokk ñun si digg Pikine lañu nekk. Mm-hmm. Pikine mbaaw la yem mbaaw. Mm-hmm. mais ñun dañoo sentir kenn boolewuñu si dara. waaw léegi ñu am benn gëm-gëm boo xam ne slogan boo xamante ne jàmm gën jàmm gën jàmm gën jàmm gën jàmm gën. ci loolu mu metti mm. ñu dëkk fii ak suñuy xarit ñu bari lool samay xarit guddi bu jotee sax balaa ñoo lekk sax man damay bëre xaalis xaalis. man temps boobu noonu laa doon def bu ñu paree dañuy dem si mayga bi ñuy lekk parce que ngay gis ñii dañu am moyen ñii duñu am moyen. Mm. te yi ñëppay ànd. Mm. ñun dañooy solante yére mais dama am benn gëm-gëm boo xam ne dama ko mosoon a am xale bu ñuy samay xarit bu ñuy dem soirée damay dem ay mbapat. man gëm-gëm boobu dama ko xam ne dama doon bien franc et benn bras fu nekk bëri naa foofu. waaw mais damay dem su ma ñëwee dama ci amay gàllankoor damay dem fenn bëri ji mbapat ba final jot sa mais dañ may jam def may affaire yoo xamante ne mm-hmm. man damay tund affaire yu métti mm-hmm. mais damay gën a amaat gëm-gëm demaat foofu si koñ boobu mm-hmm. bëriwaat mais dañuy dem ba ne kii dafa ñaax jom ñoom dañ ma doon wax ne kii du ak kenn moom kese gëm-gëm boobu dafa doon def leneen moo taxoon tey lu ma am rek damay def social bu ma amee bu ma gañee saabu ceeb bu mu ñëwee sama maam da koy jël ci tibb par porte di joxe kër yi di joxe gëm-gëm boobu laa mos a am. Mhm, mhm. Mhm. ñu bari te yaakaar bu ñu toppee mën nañ koo jeexloo émission parce que social moo mel noonu nit buy wax ci li mu gëm. nit buy wax ci li mu gëm dafa am lu muy yëg li tax ma dugg foofu mooy léeg la ma dem ci ay cas tourné ko nit ne ma. Euh, Siteu même bu fekkee mun ma am pour jot ci moom. nee ko maa ngi koy ñaanal ngir dama tëdd feebar waaye ni muy dimbale nit ñi maa koy yëg fi ma nekk donte jàppale gu ma amaguma chance bi. moo tax toujours may joxe message nit ñi ni ñuy jàppale nit ñi tane. àdduna lu la yàlla jox ci nit la ko jëlee. te àdduna lépp dénkaane la lu mu la jox rek ci nit la ko jëlee. muy wér muy lépp loo xam ne rek ak xaalis ak lu mu ma doon. nit nag boo ko tanee dimbaliwu ko bu dekkee ci gox bu dee yaa ko rey falaay du ndax sama baaraam tey ndax man ay jooy miin naa ko man maa la daaxal jooy téeméer junjoon bi ci def euh, mm. kenn ci yow li nu boole sànq mooy social tey lan ngay wax waa bi ñu gën a bàyyi xel ñi néew doole ne ku yàlla jox fukk de la séddaloo waaw diaspora bi diaspora bi aw ma seen fay Fallou mi kii du ma bëgg sa wax si moom parce que dama ko lay wax chaque jour rek kii lu nekk lay def si man te du ma ko sa tudd. Hmm. mais dama koy wax ne bu succès jeexoon lépp jeex sa ñaan ak yow. man dama ko koy wax. dama koy nëbbu quoi parce que tey nit da am say nit ñu baax mais da ngay da ngay ragal sax pour fësal ko. parce que dañuy yaakaar dara moo tax wala li nga doon dara moo tax dama ko koy wax chaque jour mu nekk koo xamee ku baax la. mais daf may woo ne ma cité dama la bëgg a yónnee man ko faalu ma na ma problème xaalis soxlawu ma xaalis daf may woo woo ma woo ma woo ma ay weer weer ba sama yaay lay mujjee woo sa naa ko ana cité mun ko non man Fallou man ay affaire xaalis yooyu góoma loolu yéen dañ mu woo rek nga ñu waxtaan si àdduna parce que xam lu ma la fi nga nekk dafa métti mm-hmm. parce que nga nekk si diaspora bi di liggéey xam lu ma la famille di lay xaar ku ne di lay xaar mm-hmm. mais suba du añ tu reer mais lu mat a sédd la suba boo mm-hmm. réussir ñan la ñuy wax sama zaari la ñuy wax dañuy joxoñ baaraamu tuuma moo tax tey ñun man damay bëgg ku may jàpp dama lay jàpp nii jàpp la parce que dañoo mën a ànd ñu jàppante te moom gëm naa dañoo mën a ànd waaw loolu am lu may témoin si moom waaw beneen kàddu gi beneen kàddu gi may ñëw si sociale bi parce que gis nañ social bi nga doon def fan yëpp ba bërki dem bu ma ànd ak 3 ak yeneen télé yoo xam si ak leeral mhm. ñu dem social ci àll bi parce que mhm. social bi gis nañ ne yemale ko jàmm gën yaa ngi koy yóbbu ci leen dëkk bala nga def kees euh, bërki démboo njaay yàggul dara nga war fa mhm. demaat am loo def ci daara jooju si te la moo tax nga jël social bi yóbbu ko fu ne partout dans le ci réew mi rawatina ci daara yi sa digganteeg ndongo daara yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci daara yi te amuñu dund amuñu yëre amuñu dàll tey nga yëkkati sa àll teraanga yu bari dugal ko foofu rawatina bërki de moo njaay li nga def social ànd ak sa jabar waaw man loolu dama ci remercier waa Tarkinda Social Fondation parce que mhm. tey fondation yaakaar naa yoo xam nga ko foofu yombul ñoom bàyyi di jàll bu baax ak mhm. ok tey yàlla daf ma daf ma nattu ba yàlla dimbale ma man sama jëm boobu ma am fondation. macha allah waxuma la fondation bi nag sama jabar moom si jàppale base bi Amérique la. foofu lañ ko tijjee mu ñëw fii. moom tamit c'est la même chose parce que dañuy toog sa jour bu may laaj yow lan moo nekk sa gëm-gëm ma ne ko man bëgg naa liggéey ngir sama famille mais bëgg naa liggéey ngir nit ñi. Mm-hmm. yaa ngi dégg mais bëgg naa liggéey ngir suba du añ du reer mais lu ma di sedd la mm-hmm. ñett yi dañ ci waxtaan ma ne ko man nit daf ma gën a lépp. mu dooleel ma ci ci biir Amérique ba yàlla dimbale ma am fondation moom tamit ma koy sant di koy gërëm ba barki démb rek dañoo toog mun ne ma pourquoi pas ñu def benn at. ñu jënd ay jaget ay pilier ak ay dàll yu mhm. bari yaakaar naa ñi démb lañ ko yóbbu mhm. yóbbu ko ay daara yi nekk kooki pour yóbbu ko foofu jox ko daara yi foofu mais parce que seddaay bi dañ koy soxla mhm. waaw loolu yëpp pour maanaam nit koo xamante ne rek dimbale ëpp na moromam doole rek da ko war a dimbale chaque jour noonu la war a demee. di ñaan yàlla na nit ñi geesu ndaw ñi. Hmm. parce que ndaw ñi dañoo am solo si dëkk bi. waaw dañoo am solo si dëkk bi. waaw ndaw nag bu ñu ko waxee nekkul nit ñi non gis ñi di dox rek nga ne noo ndaw ñi ndaw ñi mooy ñi soxla ndimbal ñu dimbali leen. Hmm. waaw ñi soxla ndimbal dañ leen war a dimbali man côté boobu laay am lu may waxee parce que tey boo xoolee tey bi. waaye Fall dañoo soxla ndimbal gaan ñu dañoo soxla ndimbal moo tax instant bii nii. Mhm. man xaalisu làmb man dama ko soxla man mbër yëpp dañu war a jàppal di bu rek man. Mhm. parce que man ñi ma war a dimbali dafa bari. wallaahi parce que instant bii nii. fii ak fii mois man damaa war a intégrer kër Fodé bi yaayam tux parce que yu bari pare na mais yooyu yëpp mbër dañ ma war a dimbali di bëree ak man parce que man damaa war di am parce que man bu ma amee damay dimbali nit ñi. Mhm. man nit ñi rek moo ma ñor. waaw parce bu la yàlla joxee siwa moom. dénkaat la benn pan yow pour mën da laa séddaleloo te noonu la war a demee chaque jour am na koo xam ne bu gisee Siteu danaa noo ñaaxul dara am na lépp sa waaye man awuma dara mm-hmm. mais sag laay doxee mais lu ma am mm-hmm. ñeme naa ko def si nit ñi mm-hmm. parce que day ñëwaat si man man noonu laay dundee te gox bi daf ma gën a lépp parce que fii da ngay gis koo xamante ne man am naa ay xarit yoo xam ne ba léegi seen kër wallaay seen kër dañuy teg cin mais dara du si nekk te doo ko xam si ñoom jàmbaar mais da ngay gis jamono affaire yi ñu jóge nii Covid bii ñu jóge nii wallaay ñoo xamante ne man ñoo ma doon jëndal essence ñoo ma doon mais dangay ngay ñëw ñu lay wax sañu soxla hmm. ñoo xamee seen dund mosuñu la wax ne dama am lii wala lële sa dund ñoo la mos a may mais sa waay métti na dafa métti te métti bi nag boo koy wax dañuy yaakaar ne sax da koy wax pour en dehors que dafa am koo xamante ne da nga koy boycotté wala dafa am man li may wax mooy Sénégal Sénégal il est temps ñu jàppalante hmm. man foofu gëm-gëm boobu laa am ma deuxième bi mooy démb li am te boobu tamit bëgg naa ci wax trop te bëgg naa tamit su ma si wax wallaahi kenn ku si nekk mu dégloo ma xel te bañ maa dégloo xolam dégg ma li am démb sunk Kër Massar rafet na baax na rafet na baax na ñaar yoon laa la ko wax mhm. ok mais dafa am loo xamante ne luy raam loo xamante ne baaxul si ñun ñun banlieue bi ñun laa de ñun banlieue bi ubbil palanteer bi nga xool balkon bi péage bi ngay jaxaaroon péage bi moo ne it nii man sama kër église bi kese moo dox sama diggante ak péage bi mais covid bi ba mu ñëwee coow li fi amoon sa waay dama man fii dama doon wàcc lu ne laay jànkuwanteel fii booy nekk fii dama leen di tere def leen nii coow li parce que coow li bu amee ñi yàq ñoo ëpp que ñiy defar. Mhm. dafa am ñoo xam ne dañuy togaalee nit. Mhm. dañuy gis si péage bi ku jël oto jàmbur. baare télé bi nii mu def nii. Mhm. lu ko tàmbalee fii bu fële. kenn du dem kenn du dem. te waaye gis nga sa waaye man maay wàcc fii topp booy mais booy ngay topp yëpp amul booy boo ciy xam doo ci xam ma demb doo ci xam ma paate léegi ñan la ñuy wax ñun banlieue ñun banlieue bi la ñuy wax léegi xoolal li yàqu fii nii côté bi autoroute bi sama xarit yi ay ñoom Abou Niass ñoom ñëpp dama leen di ñaan intervention ne leen dem leen foofu mais ku mel ni Demba Ka Demba Ka. Mhm. Demba Ka bu dul woon man man EDK dañ koy dajji. parce que Gris Bordeaux moom may dégg du bàyyi ma fenn moom lañ fa yóbboon pour mu jàppale ko mais Gris Bordeaux dafa mujjee xaar di daw bàyyi dafa ma woo téléphone ne ma Siteu fii sa zone la dama bëgg nga ñëw jàpp si du ma ko fàtte mukk mhm. benn rax Demba Ka moom lañ ma booleel. mu ne ma grand bi bëgg nga jàpp si du ma ko fàtte mukk jour boobu ma ne ko grand bu ne ma naam ma ne ko lu ma ci mën dinaa ko def zone bi ñi fi nekk ñëpp ma xam leen dama leen gis wax ak ñoom jour boobu xam nga ñaan la yëkkati jox ma ko ko fàtte mukk xaw ma 600000 xaw ma ma yëkkati ko noonu laa ko joxee booy ci lendemain bi mu woo ma mu ma booy gisuma fi ay booy ma ne ko grand ma naam ma ne ko leen de xamal naa ko ma ne ko fii benn booy du fa ñëw parce que loolu sama responsabilité la hmm. mais nit du fa garder nit du fa taxaw hmm. su ma ko waxee loolu parce que gisu kenn ku fa garder hmm. mais pour moom ma ne ko suba si mu dema mais xaalis bi ñu la joxoon ma ne ko grand ni nga ma ko joxee noonu laa ko joxee boo yooyu pour wala ñooñ ci def ñaawteef yëpp dañoo amul dara parce que tey boo fekkee ne da nga yeewu sa yaay bi la jur sa yaay bi la jur di ñaxtu ne junni laa bëgg faadal te yow amoo foo ko jëlee mais faadal bu amul xel dem defi ñaawteef loolu nag il est mu dagg nan lay daggee mooy dañuy jàppale. Hmm. créer ñu ay entreprise ñu liggéey dimbali ñu suñu jeunes yi fii da ngay gis ay xale yoo xam dañuy jàng bu am diplôme mais quelque temps fii lañ leen di fekk ramasse la si kooñ bi nga ñaaw rek mel ni booy bi rek ñu jël la yóbbu la kaso non sérieux hmm. yaa ngi te yàlla xam na ne li nekk ci yow xamuñu ko. Hmm. yaa dégg may wax président Macky Sall yaa ma laay waxal di koy wax ni ñun suñu dëkk bi ñun lu dul jàmm bëgguñu ko ñun jàmm lañ bëgg. mais affaire Sonko bi mais na ko baal mhm. na ko baal ngir ñun ndax parce que tey lu am ñun dañuy sonn mhm. bitig bii nii ñu jàkkaarloo mhm. li ma fi jënd ci moom si ay ceeb mënu ma laa wax nu mu toll mais bi ma jeexalee li ma ko leb war na mat ay huit cent mille jëm kaw te loolu yëpp si ay doomu aadama dugalu ma ko sama kër te loolu ko moo tax mu am kon tey ñun lii di raam nii lii di raam nii di ñëw su dalee suñu kaw sa waaye c'est la même chose la ñuy dund ci ñoom du xam coono yi ñuy dund te ñun dañuy sonn di ñaan sunk lu muy def wala lu muy wax baax na kenn waxu ko ne baaxul mais bu mu ci boole coow. Mm. ñun xeexuñu. Mm-hmm. xuloowuñu. Mm. dégg nga te man gis nga jàmm gën gi ma dëkk. Mm. lu ko tàmbalee Fass mbaaw ba Sibs man sama responsabilité dama koy jël. fii ku fi xeex wala nga ci xuloo loolu dama ci rayante ak yow. bañu ma si dara man Siteu parce que tey bu méttee sama kaw lay njëkk a métti. Mm-hmm. dégg ma ma bëgg nag képp koo xamante ne ak gox boo mën a nekk. nga jël say responsabilité faral ku la neex faralal ku la neex mais ñun xeexuñu xuloowuñu parce que bu ñu xeexee xuloo suñu yaay la ñuy gaañ suñu tante yi la ñuy gaañ homme de tenue yi ñun suñu biir kër yi la ñuy dëkk kon il est temps loolu mu jeex nañ politique ñun d'accord nañ politique mais ñun du duñu ay politiciens te ñoom bu ñuy xeex ñun la ñuy xeexloo mais tey su ma waxee faadal bi wax ñu ne la la faral man faraluma kenn man population bi laa fi nekkal dégg ma man doomu banlieue laa xam li banlieue di dund ñuy am suñuy xarit yoo xam ne dañuy dem usine sax pour ñu liggéey pour ñu liggéey wallaay dañuy tax dang-dang ba sonn bu ñu demee ku ci gaañu nañ la nax ba nga faju boo fajoo ñu dàq la mais boo liggéey ay 2500 lañ lay fay 2500 da nga ci mën a paas da nga ci mën a añ dañ nga ci mën a joxe dépasse yow kañ ngay réussir ah te yow léegi yow yaa ngi rêvé benn cité boo xam ne yaa ngi koy gis mu toog ni yaakaar dafa yor lu nga bëgg a mel ni moom mm-hmm. mais dangay tax nga doxee noo xam ne waroo ko doxee wala ngay daw loo xam ne waroo ko daw nañ dimbalante ma loolu laay wax président bu dee moom lii mën na si teg tànkam mu teg si tànkam suñu kilifa diine mais mu jàppale ñu ñoom tamit ñu wax yaa ngi dégg parce que tey boo xoolee valeur bu ñu am sa amatuñ boo xoolee ay xale yu ndaw ngay gis ñu dépassé suñu kilifa diine mm-hmm. pour lan te ñun ñu joxe suñu njébal ne àdduna ak laaxira loo leen wax ñu def loolu ñu digal ñu def loolu ñu tere ñu bàyyi fii ku jébalu sa bopp sëriñ boo feebaree boo demee hôpital jébal sa bopp médecin lu mu la wax nga def ko bu mhm. la nee sumi sa tubéy ma piqûre la nga def ko mhm. mais kon tey ñun lu tax waruñu delluwaat suñu xel jàppalante tey banlieue bi fii mhm. banlieue bi ndaw yi nga fii gis yëpp ñuy dëgër bopp amul ndaw bu ma sañ a wax ne ma laa jël yóbbu la si àll bi pour nga dem bàyyi ji mais nañu may ay tool ñu jël boo yi nga xamee amuñu métier ñu yóbbu leen si àll bi ñu dem bàyyi man gëm-gëm boobu laa am. Hmm. ñun foofu lañ toll. Hmm. ñoom loolu la ñu war a politiquer ak ñun. bu subaa ñu mën a am fier jël suñu carte yi dem xool leen voter leen. Hmm. mais pas ay dem leen ngeen rayante. gaan ñu rayante wuñu ñu loolu tawul suñu yaram. te ñoom seen i doom duñu xeex de. man rayante ma de rayante wu ma de te jàmm gën fii warul rasulaay ko ko bëgg a taal naa jot ak yow. waaw ma bëgg nag képp koo xam ne porteur de voix nga nga jël responsabilité koñ bi nga dëkk. xam ne loo nekk wala loo doon. mbooloo bi nekk sa ginnaaw dëgg sa koñ ñoo la ko def ñoo la ko may te bu méttee na gaan ñi tëju seen biir kër day bari de kon nañu am gëm-gëm ñun am gëm-gëm suñu bopp xam ne liggéey rek moo ñuy may leneen du ñu may suñu àdduna lu dul liggéey man côté boobu laay waxee lii nag dama waxoon dama koy wax bu dee wax naa si loo xamante ne lu ñaaw la maa ngi jégalu maa ngi de bu ma si waxee loo xam ne lu man la xamane ñun ñëpp la waaw loolu la am loo xamante ne tënk naa ko wax ko ñu amee leneen loo xam waaw di leen masawu rek sa waay mm-hmm. àdduna la àdduna buy waaj a jeex lu ne mooy ñëw boo amul gëm-gëm amoo sañ-sañ sa bopp yow da ngay sax nañu am gëm-gëm booloo xam ne lu ñëw yàlla la lu ñu dal tey ñu ko suba mu bañ ñu dal man gëm boobu laa jam waaw ayca ayca ñëw leen ci question ci la na lool mm. parce que tamit yaakaar naa ne <clears throat> comme ñun ñëpp a si yem bu fekkee ne da nga xëy gis maire bi comme ni mu ko waxee rek muy jànkonte ak yenn yi daa moom métier doo bëgg lu dul dem rey doomu jàmbur wala agressé doomu jàmbur jël li mu moom yaakaar naa ne côté boobu discours yi muy def ñu ko ciy jaajëfalaat bu baax a baax a baax parce que des fois mm-hmm. comme man mi nga xam ne dama teel a ñàkk papa ma lu dul ñaar day doy waar mais damay ñëw ci côté làmb <coughs> dañu gis ñu bëri nee nañ Siteu day topp social yi day topp malade yi day topp ñu yorul dara ba talluta entraîné parce que dañu gis ne làmb ji ñi la ci sut bëriwul te ci côté évolution maanaam ci doole dañuy gis des fois sax amoo combat doo rey sa bopp wala duñ kenn gis benn développement bi ci yow lan ngay wax ci amateur yi nga xam ne dañuy wax ci loolu noonu. waaw amateur yi maa ngi leen di remercier parce que tey dama nekk mbër boo xamante ne ñun fii gox bi ñu nekk. ñun dañoo am exemple yu bari am naa benn grand boo xamante ne Siré Seras la tudd. grand boobu ba léegi dama koy xalaat ko bi ko tafaagee di jël si fii jàmm gën ñun ñëpp a guddi boobu dafa dajale si mbooloo mënuñu ñoo xam ne mu toll. jël si ko ne da ko bëgg a yóbbu Fass ngir nuróo bu nuróo nag Tapha Gueye mm. ñu gis fi ay ñoom isaapu yi gis fi ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne si gox bi lañ dëkk mais benn slogan moo fi yàgg daw dañ naan mbër bu réussir faalewul kenn di mm. jëntiwul kenn mm. boppam rek moo ko ñor tey bi may am kër ñu bari dama leen di dégg ñu naan cité danga war waroon a dem ut kër feneen ndax nga noppali ko ndax parce que xale yi duñ ko may jaam man kenn duma sonal fii man ku ma sonal man la neex fii ma sonal man bëgg sañu ñu sonal ma parce que tey su fekkee ne tey dama siw man su ma xewlee ñëpp ñëw mais bu ma paree da si laa war a dem jël sama temps dem di entraîner mais damay entraîner mais dama si boole nit ñi dem dëkk ak ñoom dugg seen biir comme commencement ni ma doon dundee noonu laay def chaque moo tax ma dëkk jàmm gën bu mais damay entraîner chaque jour man damay entraîner chaque jour damay entraîner bu ma demul saal maay diin mais sa waay bu la nit ñi yaakaaree nooy def. mënoo lu dul timbali leen. Mhm. man weer rek bu ma ko jógee jàmm gën jàmm gën dañ koy yëg. Mhm. da ngay gis ay ndaw ñoo xamante ne dañ leen di yóbbu prison te duñ def dara. dañ xool ni rek neexu la rek nga yóbbu ko kaso nekk homme de tenue gis jeunes yoo xamante ne dañuy jël alal jàmbur boo laajee lu tax ñuy jël alal jàmbur dañ naan la gaan du ma la fen de dañ la koy wax nii nga dégg ko dañ la naan la du la fen deret tuuru moo gën gàcce. parce que ñoom dañuy juddu si kër xamuñu métier amuñu benn métier mais sa waay boo man bu ma toogee sama yaay dem si guddi muy ñaxtu naan man de bu ma amoon deux mille cinq cent suba ma xëy lii laay dem jënd pour xale yi lekk pour def nii sa waay ngay dégg loolu. si biir noo nga koy dégg yow boo xëyee nooy def boo amul dara da ngay dem sàcc wala nga agressé nga nit ñoo man damay am combat man damay jël sama xaalis di def si ñoom eh. pour nit ñooñu ñëpp kenn ku si nekk. pour nga mun a xam ma la nga satisfaire au moins nga bàyyi lu bëri pour def la mel ni ñu di yaakaar na yow da ngay focaliser booy Sida yaa ngi yàq émission bi loolu gaay gaay gaay gaay lii yëpp lii yëpp li boot si ginnaaw moo bari man damay dund coono yu métti ay coono yu grave laay dund man bi mu nekkee booy laa commencé jël sama responsabilité am na ñoo xam ne man maa tax ñu bàyyi banditisme man maa leen taxal jabar du ma ko cité ku mel ni Ibra Dieng kooku ab ma nekk xale ba léegi dama ko tax buñ ko doon jàpp kaso sax dama ko na wax naan maa yow ñooy mais daf may dóor dóori métti a dem rek mais loolu yëpp dama ko dund fii am la bi ma amee 15 ans lan sama papa gaañ mais dama dama dund ay affaire yu bëri fii walaay ma sama gox ma ma mos a ñor walaay man dama mos a koo xamante ne di jël alal jàmbur wala ngay def loo xamante ne ah du dëgg man dama ko mos a sama laa mais dama mos a jaante sama àdduna ne di bu dee njàmbaar moo lay rey sa da ngay téye quoi. mu dama mos a gëm la man coow yi ma coow yëpp ay nit ñoo tax may coow. gaay gaay gaay gaay gaay nañ dégloo boo leen gisee li am ci moment bi mooy Siteu li muy wax yëpp ci ndaw ñi la. si li muy wax yëpp ci ndaw ñi la pour nit ñi pour nit ñi jàppale ndaw ñi parce que fii mu nekk si jàmm gën xëy na ku xamul ku xamul da ngay da ngay yaakaar ne si day day jàppale xale yoo xam dañuy def lu ñaaw wala déedéet si te am dafa yaatu nañ ko bàyyi xel bu baax a baax si am na ñoo xam dañuy toog naan si te yàlla na bàyyi bëre am na ñoo xam dañ naan si te yàlla na bàyyi bëre ndax li nekk ci ginnaawam parce que nit boo toogut ak moom noo xam ban genre la li muy jooy yëpp ginnaaw gi moo yaatu muy jooy yëpp lii toog ci buntu këram kenn xamul nu mu toll ak ñi muy dimbali ak ñi muy jox dépense ak ñi nga xam ne ñun dugal nañ ñun bërki démb la ñu yónni social moom ak jabaram ci ay dëkk àll yu ne ñuy dugg foofu di fa joxe ay yére sedd di fa joxe ay dàll keroog bi ñuy ñëw fii ay xamuñu ba heure lañ fi ñëw mu metti lool kon yéen ñi nga xam si ay yéenay ay seetaan ak yéen ñi nga xam yéenay gouvernement bi rawatina président Macky Sall gestul banlieue bi gestul jàmbagan si Kambaaw tëli Mame Diarra Siteu dafa sonn li nekk ci am dafa bari li muy dund chaque jour kenn xamul nu mu toll bu ñu jugee ne jàmbagan ay bandi lañ wala Sikamba wala Télimam Dia ay déedéet ay ñafekat moo fi ne. li tax mu jooy moo ko xam li tax mu jooy Siteu li tax mu jooy moo ko xam ndax tey jii am na loo xam si ni nooree mi nooree ni mii tey ñi fi toog ñëpp a ngi jooy. ndax sita kàddu yu mu génne tey ni musu koo xam kon li ñuy ñaan li ñuy ñaan président Macky Sall nga jàppale. Siteu jàppale ginnaawam jàppale banlieue bi ndax xale la yorul entreprise yorul dara ci làmb la yaakaar chaque jour muy joxe ay dépenses chaque jour mu yëkkati ay saako ceeb di ko joxe di def sociale fu ne kon président Macky Sall jàppale sita réew mi nag taluñu ay rayante xeexalal diw wala woote diw ñi nga xam si ñoom ñooy dem pour xeexloo ndaw ñi ñoom ñëpp seen i doom ñoo ngi si ay bërëb yu baax di jàng ñoom ñëpp seeni doom ñu ngi états uni ñoom ñëpp seen doom ñoo ngi feneen ñun ñun nga xam ne ñun ñooy baadoole yi ñun la ñuy fekk di ñu fëggloo suñu kër naan dem leen xeexi duñu ko nangu duñu ko nangu ñun banlieue bi duñu ko nangu xam nga lu ñu mën mu yor suñu carte ku nekk nag yaa xam ki la neex ak ki la soob nga far ak moom am nga si droit ndax sa carte nga yor waaye dañoo bëgg réew mii nañu nañu ànd ak yar ñi nga xam ne ñoom ñoo ngi toog bitim réew di jël ay kàddu yu ñaaw di ko def si sëriñ si nañu ko bàyyi. te ñu xam ne jeex na de réew mi dafa jeex pare àdduna dafa jeex a pare ñun xale yi nañu xoolaat bu baax a baax la ñuy def te yeneen te jàmm te yeneen te jàppale waaye dañuy ñaan président Macky sàll geesul système yi nañu ko geesu jàppale ko ndax xale la waaye ginnaaw gi yaatu na de ginnaaw gi yaatu na lool. man bokk loolu laa am di di lu may wax di ñaanal.